di nicmatul ibadat ñaareel bi mooy xéwalu sixatul abdaan mooy xéwalu wér yaram mbokk yi xam ngeen ne waxtu su néew ci ginnaaw ñu doon jëfandikoo xéwal ba ñu yenkeewal mu nekk xéwalu nelaw mu du wax ne ci alquran di téere bu mag ba ñu yore ci suñu dund bi mu ne ñu ca suratu naba ak yeneen aaya yu fasante ko buur yàlla di ñu ne wa ja'alnaa nawmakum subaatan man yàlla maa leen defal nelaw mu nekk dalluwaay bu nga xamante ne feneen fudul ci nelaw du ngeen amee dalluwaay woowu fenn kon dalluwaay boobu di nelaw dafa am yonent bi sallallahu alayhi wa lam ñu fi tal mu ne ñoo bu ñu jëfandikoo xéewal woowu yàlla xéewalal ñu ba noppi dañu ko war a sant ne ko alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yu kawe yi mboolem xeetu cant yu matale yi ñeel nañu yàlla ndax buur la boo xamante ne moo ma faat ci nelaw gannaaw si mu delloo ma sama ruux te ci moom yàlla lañuy ñuy dellu keroog bu ñu jeexalee dund bi ci kaw suuf si mooy maana alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur boroom xam-xam ya yaree ci keppaaru sahaaba yi ajmain sahabatul kiram ñooñu yonentu bi yar leen ci keppaaram ci jamonoom ridwanullahi alayhim ajmain ña yaree ci keppaaru sahaaba yooyu bokk na ci xasanul basri ibnu aadam innama anta ayaamun kullama dahaba yowmun zahaba baadu xasanul basri rahimahullah muy fàttali doomu aadama bi mu ne ko yow yow doomu aadama xamal ne li fi nekk kañ innama ay ayaamun yow lala fi tax toog lala fi tax nekk lala fi tax a bàyyi mooy bés ya ngay dund ba na da war a sa xel ne kullama dahaba yawmun bépp bés ba jaar jàll xamal ne dahaba baadu ko am na lu deñ ci sa dund bi bés ba xasa ñëw ba jaar jàll xamal ne am na la mu yóbbaale ci sa dund kon nga déggee ci maana waxu boroom xam-xam bii di xasanul basir rahimahullah dalay fàttali ne yow doomu aadama bi bépp bés ba ñëw jaar jàll am na lu wàññeeku ci sa dund kon bés boobu nanga waajalal sa bopp wax ci biir bés boobu la tax buñ la wonee bés boobu dinga bég nang fa mel melokaan woo xamante ne buñ la wonee sa melokaan ci bés boobu dinga bég te nga moytu safaanu lu baax ci bés boobee ndax bépp bés ba la fi musa foto bés dina jot ñu ne la bés sàngam ci atum sangam nii nga defoon lii nga waxoon fii nga defoon nii nga mel bu dee rëccute mos na ci am nanka tuub mu nekk tuub bu sell nga bañ a dellu ci ñaawteef boobu ci sa la des ci sa dund su ko defee nga góor-góorlu dab dabaatal li nga xamante ne mooy lu baax toftal ko la ñaaw la jiitu woon ci sa dund nga dabaatal la baax ci kaw la ñaaw lu jiitu woon ci sa dund bi su ko defee innal xasanaat yuzhibna at borom bi ne lépp luy jëf ju yiw boo ko toftalee ci jëf ju ñaaw amaana day doon ndox buy ñëw raxas lu ñaaw loolu bi dootu fa nekk kon yow mi nga xamante ne yaa ñuy topp ci waxtaanu fajar fii ci réew mi FM 97.5 bu fekkente ne bés bi da bés bu bees ci suñu dund di bésu àllarba bi mu tombeek ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru zilhijja mu tombeek ñaar ak juróom ci weeru tubaski ah kon ñu lay fàttali ne des na suñu digganteeg tamxarit di ashura fukki fan ak ñeent bés ni ci bésu àllarba bi mooy le vingt-sept ci weeru zilhijja di weeru tubuski mu des suñu diggante ak ashura quatorze jours di fukki fan ak ñeent bu ñu ashura nag ñu ne tam xarit bu ñu tam xarit ñu ne fukkeelu fan ci weer woowu événement ya fay xew ñu ñaan yàlla suñu borom weer bu sell woobu buy ñëw yàlla nañu fi fekk di ashura yàlla buy dem yalla nañu fi bàyyi waaye ci biir weer bi ak ci fukkeelu fan bi lépp lañ fa jàmm yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin ndax weer woowu mooy njëlbeenu weer ci kalandir yi jullit ñi te mooy tombeek mille quatre cent quarante ci gàddaay yonent bi bu ñu xasee ba tàbbi ci tamxarit weeru tamxarit su ko defee année bi daal di soppeeku at bi daal soppeeku ñu daal di am mille quatre cent quarante six ans ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa waaye fu ne nii weeru tabaski bu ñu toll nii di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar moo tombe gàddaay yonent bi mille quatre cent quarante cinq ans incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee ba ñu fekkee tam xarit ca la at bi di wëlbati ñu am mille quatre cent quarante sixième année buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi waaye lépp lu ñu jaamu yàlla ci at bi ñu nekk ni ak at bu wees bay dëgmal si yal nañu ko yàlla buur jéggal yal nañu ko yàlla buur boole nangul amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne mbaaxu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci xeetam lañ ko mën a waxtaanee du xaaj ba ñu koy jeexal duñu ko mën a waxtaanee ba mu xaaj ba di ko jeexal sallallahu alayhi wa sallam xanaa du rek dañuy comp as tuut rek gannaaw bu ko yàlla buur bi tabaraka wa wane ci yónni bam ko yónni mu ne ko defuma ko lu dul nga nekk xéwal nga nekk yërmande ñeel ci samay mboole mbindaafoonam yi su ko defee nga dégg aaya bi buur yàlla tabaraka wa taala di ci alquran wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin yónni bi ma lay yónni yow sama ndaw du dara lu dul nga doon yërmande ñeel samay mbindaafoonam du doon dara lu dul nga doon yërmande ci sama mbindaafooni loolu doon tax ma yónni la bu dee mbindaafoonu yàlla fa la yàlla jaarale yërmandeem ci yenant bi ngir mu doon yërmande ci mbindaafoonam ah kon yenant bi sallallahu alayhi wa sallam yónni ba ko yàlla rahmatan lil aalamin loolu la koy firndeel mooy moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci maana ne ñu yarhamuhum rahman képp ku aji yërmande ci mbindaafoonu yàlla yi yàlla da kay yërëm nga déggee ci maanaa hadis bi xataa ndaw sa nga xamante ne dafa bokk ci waa banu israil mu nekk ndaw soo xamante ne dafa yàlla dakaa nattoo mu nekk ku sàggane mu nekk ku doy waar mu nekk koo xamante ne daawul teg tànkam fa yàlla rëdd nit ku baax ku ne fi nga war a jaar waaye yàlla nattoo ko seytaane mane ko mu nekk ku topp bànneexu bakkanam muy jëflante ak ay nit ci anam yu lewul muy jëflante ay doomu aadama ci anam bi nga xamante ne sellut rafetul jekkul waaw xel war a mën a jàppee ne ndaw soosu de bu dee ci anam bi nga xamante ne noonu la daan dundee dina dajek merum yàlla waaye yàlla natt ko bés mu tànk ndox jox ko mala bi nga xamante ne daa soxla lool ngir mu jëfandikoo ndox waaye keroog geste boobu mu jëfandikoo mala bi yàlla daldi kontaan geste bu noobul boobu mu jëfandikoo mala yàlla daal ko jéggal bàkkaar yooyu mu doon def ba yàlla rëddal ko ne dina bokk bés pénc ci ñey dugg àjjan ngir geste bu noobul boobu keroog ba ka yonent bi doon wax sahaaba yi radwanullahi ajmain sahaaba yi dañ ko ne mais yow mi yàlla yónne est nit dina dugg ci arjanna yàlla dina jéggal nit ci bàkkaaram ngir dafa am la mu mala ci geste bu noble nañ leen déglu la leen bi tontu sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amul benn mbindaafoon ba yore xol bu tooy lu boo jëflanteek moom geste bu noble yàlla dina la ci bindal yiw amul benn bindaafoon benn bindaafoon la yonent bi wax amul lenn la yalla bind muy dukkat ci kaw suuf si mu yore xol lu boo jëflanteek moom jëflante bu noobul xusnul muamala lakka fiihi ajar yàlla dina la bindal yiw ci gest boobu noonu nga jëflanteeg borom xol boobu te mu doon bindaafoon bul xaar mu di la wax jërëjëf bul xaar mu di la wax merci bul xaar mu di la wax shukran tànk da di boroom xol bu tooy nga jëflanteeg moom jëflante bu normal jëflante bu noble geste bu noobul xamal ne jëflante boobu nga jëflanteeg mbindaafoon boobu yore xol yàlla dina la bindal ci sa jëf jooju yiw kon ndekete di jëflanteek mala yi di jëflanteeg bayima yi di jëflanteeg rab yi nga xamante ne mënuñoo wax di jëflanteeg ñoom jëflante bu yiw jëflante bu noobul doomu aadama mun nga ci faggoo ngir mànde yàlla ak yiw joo xamante ne buñ la ko wonee danga naan yaa layta ma nekk ci dundu àddina may toppatoo mala yi di leen aar di leen sàmm di dox ci li nga xamante ne da leen di bégal waaw yëpp dañ koy boole ci rahmatan lil aalamin waaw yërmande ba yàlla jaarale ci yenant bi mu def ko mu doon ndaw joo xamante ni daa fees dell ak yërmande sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee ci xadis bañ leen bëgg a dégtal ni inchaa allahu bi idnillahi subhaanahu wa taala ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci Rewmi FM 97 point 5 mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam li kulli da'watun mustajab yad'u biha fa yustajaba lahu fa yu'taaha wa inni axtaba'tu da'wati shafaatun li ummati yowma alqiyaama saxiixul muslim mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ka yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee ci maanaa xadis bi ne ñu li kulli nabiyin bépp yonent am na daawatun mustajab ñaan bañ ko baaxe mu ñaan ko ñu nangul ko waaw nee li kulli nabiyin bépp yonent ba yàlla musa yónni daawatun mustajab am na ñaan bañ koy nangul waaw am na ñaan ba yàlla yenkeewal baaxee ko bépp yónnanti ba yàlla musa yónni am na ñaan bam la jox nela ñaan bi mooy sa sànni tàccu ñaan bi ma la jox ni mooy sa dernière bal ba nga xamante ne boo ko sànnee jeexal nga pare nga ci dina la ko nangul yonent yu bari nag ñaanoon nañ seen ñaan yooyu Muusa ñaan na ñaan boobu Nuux ñaan na ñaan boobu waaw yonent yu bari yonent Yàlla Ibrahim ñépp ñaan ñaan bi nga xamante ne yàlla may nañ la ko comme mu doon sa dernier sens waaw bépp am na ñaan ba ko yàlla jox mu nekk sànni tàccoom mu nekk dernier sens bi nga xamante ne mooy sa ñaan bu mujj ba ngay ñaan yàlla mu nangul la ko waaye ñu bari ci yonent yi ñaan nañu seen dernière chance yooyu fii ci àddina yonent bi nee na sallallahu alayhi wa wa inni naka man de axtabatu da'wati man de dama denc dama réserver sama ñaan waaw dama kaa réserver dama kaa denc man ñaanuma ko fii de déedéet ngir lan shafaatun li ummati yowmal qiyaama man dama denc sama ñaan dama denc sama ñaan occasion ba yàlla may yonent yi dernière chance ba yàlla may yonent yi sànni tàccu ba yàlla may yonent yi ñu bari def seeni bos fii ci aw fii ci kaw àddina fii ci dund àddina si man yonent bi defuma sama bos fii de dama kaa denc ngir ma ñaanal ko sama xeet yi keroog bés penc allahu akbar mbokk yi bu dee kii la yàlla ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónniwu ma lu dul nga doon yërmande ñeel mbindaafoo kon xadis bi day gën a dëgëral aaya bi wala aaya bi day gën dëgëral xadis bi waaw kañ yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam li kulli nabiyin daawatun mustajab bépp yonent ba yàlla musa yónni ci kaw suuf si yàlla may na ko dernier sens mu yore ñaan bi nga xamante ne bu ko ñaanee day dal yàlla da koy nangu ci saa si waaye yonent yu bari dañoo ñaan seen ñaan yooyu ci seen jamono dañoo ñaan yàlla ci kaw suuf si ñaan balen yàlla may comme dernier sens yonent bi salaa sallam nee na wa inni axtabatu daawati shafaatu li ummati yowm alqiyaama man dama denc sama ñaan boobu man dama réserver sama ñaan jooju man dama làq sama ñaan jooju ñaanuma ko fii de te duma ko fi ñaan tamit ma yonent lu tax nga denc ko mu ne dama kaa denc ngir ñaanal ko sama xeeti keroog bis penc alayhi wa sallam mbokk yi kii la ñu yàlla royloo mbokk yi kii la ñu yàlla joxoñ mbokk yi kii la yàlla wax ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhim ma anintum harisun alaykum bilmuminina raufun rahim kii la yàlla tabal garat wi sallallahu alayhi wa sallam kii la yàlla wax ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin sallallahu alayhi wa sallam kii la yàlla wax ne fa bimaa rahmatan min allahi linta lahum walaw kunta faddal qalida al qalb lan faddu min xawlik kii la yàlla tabb garat wi ni mel sallallahu alayhi wa sallam kii la yàlla wax ne dëgg dëgg dëgg dëgg dikkee na leen docteur médecin professeur bi nga xamante ne ci seen géño la bokk xam ngeen ko mu xam leen xam ngeen wuy juram mu xam si ni wuyjur min anfusikum mu bokk ci yéen mu nekk ku noble mu nekk ku am dignité mu nekk ku am personnalité waaye mu am cofeel bu mag ci yéen ngir ngeen bañ a dee ci kéefër waaye mu am ñeewente bu toll ni yërmande bu toll ni bu doon ci loxoom la gindee ku nekk bu doon ci loxoom la caabi arjana nekk bu doon ci loxoom la xéewal yi nekk kenn du dund jafeñ-jafeñ sallallahu alayhi wa mu ëmbal leen yiw joo xamante ne keneen ku dut moom ci mbindaafoonu yàlla yi amul kenn ku leen ëmbal yiw bi ni mel sallallahu alayhi wa mu doon ko am xër ci ngir ngeen topp ko ngir ngeen topp ndigle yàlla ngeen bàyyi tere yàlla yi ngeen sore lépp li leen seytaane di wommat sallallahu alayhi wa sallam lii la leen ëmbal ci seen dundu alayhi afdalu salaatu wa aska taslima kii la yàlla wax ne boo nekkoon boroom xol bu wow boo nekkoon boroom xool bu ñagas ni konte woon gaay dañ lay bàyyi ñëpp lay daw waaye fa bima rahmatin min allahi linta lahum kon yërmande bala yàlla yenkeewal kon bala yàlla jàppandalal kon yowit na nga doxal yërmande boobu sa digganteeg say sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain su ko defee nang leen ñaanal yàlla njéggal te nga jéggal leen nga leen jëllale rëcc-rëcc yi nga xamante ne dañ koy jëf seen diggante seen moroom walla léeg-léeg nga gis ñu rëccale jëflante ak yow jëflante joo xamante ne jëfuwul waaye nang leen jéggal lii la ko yàlla sant sallallahu alayhi wa sallam yonente boobu moo ne ñu li kulli nabiyin daawatun mustajab bépp yonent bi yàlla musa yónni yàlla yenkeewal na ko jox na ko dernier sens ba toll ni ñaan ba mu wara ñaan yàlla nangul ko moo tax mu ne yad'u biha fa yustajaaba lahu bépp yonent ba yàlla musa yónni yàlla mos na jox ñaan bay doon dernière sansu yonent boobu bu ko ñaanee yàlla yàlla antul ñaan boobu ci saasi waaw mu ne wa inni ixtabatu da'wati man de dama jël sama ñaan boobu yàlla jox ma mu doon dernière chance sama ñaan yi mu doon sànni tàccu ci sama ñaan yi ma daal di ko làq ma denc ko waaw ma daal di ko denc réserver ko waaw lu tax yonent bi réserver ñaan bi lu tax yonent bi denc ñaan bi ñaanu ko fii ci àddina ki ko bëgg xam nag ñu topp ci réew mi fm 97.5 ci waxtaanu sab buy jaar fii ci waxtu wi yonent bi ne wa inni man de axtabatu daawati dama réserver dama denc dama làq sama ñaan jooju waaw ngir lan shafaatun li ummati ngir ma ràmmee ko sama xeet ñi keroog bés pénc allahu akbar nga xamante ne keroog bés pénc ba yàlla suñu borom tabaraka wa taala dumóoyoo jaami mu dumóoyu mbindaafoo ni taxawaay bi yàgg nit ñi xat nit ñi sonn nit ñi lot benn tot waaw su ko defee nag ñépp daldi di mankoo ñu ne bi fum mu ne nii jéggi na dayoo léegi kañ nañu yàlla àtte kenn ku nekk ci ñun mu xam fu mu féete waaw comme léeg-léeg ñi yàlla nattoo caabi féete leen ginnaaw bu leen juge bi dumóoyoo walla procureur bu leen dumóoyoo mu teg leen fenn dañuy dem ba toll foo xamante ne dañ naan nañu juge bi àtte wala nañu procureur bi àtte waaw kii àtte daal na ñu àtte su ko defee ñu xam fu ñu féete keroog bés penc tamit noonu lay demee yàlla day daal di dumóoyu mbindaafoo ni jaami waaw taxawaay bi yàgg lool mbir yi saf-saf waaw nag yàlla nee na ci jullit bi bés boobu doon lu tar ci moom waaw lakin walal kaafiriin xayru yasiir ke weddi yàlla fii ci àddina nag bés boobu du doon bés bu yomb ci moom waaw comme ni ko gars di waxee bés boobu du yomb si ñawet di yàlla ñawet di yàlla fii du ñu jaamu yàlla ñu nekk ci seen bànneexu bakkan ñuy doxal la neex ñu nekk ci seen olala faale wu ñu yàlla faale wu ñu yenentu bi ah su ko defee ñoom daal yal yàlla jéggal balaa bés boobu waaye sinon bu leen dee fekkee ci loolee yàlla nee na ñooñu bés boobu du yomb si ñoom de waaw keroog la doomu aadama yi di babbeeku ñuy dem ci seen maam de suñu maam nabillahi adam alayhi salaam bu ñu àggee ci moom ñu tawatal ko la nga xamante ne mooy coono yi taxawaay bi yàgg na moo ne doo ñu ñaanal suñu boroom mu àtte jaami mu ne leen taluma ko la ma nekkee doy na ma moo maam aadama lu mu nekkee danaan man de yàlla dafa dogal si man ngeen soqe ko waaye man la yàlla njëkk bind mu am fi palaase placé ci biir arjan nam fa demee waaw am li ma tere xeetu mooy yaa ma fa def tey loolu lay xalaat ba xam yàlla dana ma ko jéggal wala déet taluma leen sama bopp laa tal nafsi nafsi ñu daal di bàbbeeku ñu ne nañ leen dem ci annabillaahi nuux nabiyullaahi nuux nga xamante ne mooy njëlbeenu yonent bi nga xamante ne yàlla dakaa fan bu gudd muy woo xeetam ila kalimatu tawxiit waaw ñu demee ci moom ñu daldi tawat coonoy bés bi ak taraay bés bi ak taxawaay bés bi bu ñu dégloo ba noppe mun ne ñu man de maa musa ñaan yàlla bu mu bàyyi kenn ci kaw suuf si ki fiy nekk di ko moy te écrasé na leen ñoom ñëpp moo ne loolu lay xalaat ba xam yàlla dina ma ko jiggal am déet taluma sama bopplaatal laa tal nafsi nafsi sama bopplaatal laa tal taluma leen ñoonu lañ koy jàppoo ñuy wàcc ñu ñëw ci ibrahim alayhi salaam ci nabillahi ibrahim alayhi salaam ñu ñëw ci nabillahi moussa alayhi salaam benn nii ñuy ñëwee ci nabillahi isa alayhi ñoom ñëpp bokk jox ñu ngant su ko defee mbindaafoon yi daal di babbeeku ñëw ci xaatamal anbiyaa wa imaamil mursalin afdalul xalq seydil awwalina wal axirin sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu ñu ñëwee ci moom ñu daldi ko wax lañu ñu waxoon yonent ya jiitu ñu ne ko nag ah mbir yaa ngi ni yaa fi sës ah su ko defee sallallahu alayhi wa la muy waaj a def nag ki ko bëgg a xam nag ñu topp ci réew Rewmi FM 97 point 5 ci waxtaanu fajar wi di jaar fii ci waxtu wi su ko defee ñu dégtal la la yonentu bi nara def bés boobee sallallahu alayhi wa te mu dëppoo ak la xadis bi di jàngale ne li kulli nabiin daawatun mustajaaba yaduu biha fa yastajaaba lahu fa yu'taaha mu ne nag wa inni axtabatu daawati shafaatan li ummati yowm alqiyaama nee na bépp yonenti yalla daka jox dernier sens mu doon sànni tàccoom mu doon dernière occasion ba muy jëfandiku ci xeetu ñaan nee na ñëpp ñaan nañu la yàlla jox fii ci àddina moo ne nag waaye man nag ah damaa jël sama bos réservé ko ma denc ko waaw lu tax yonentu bi denc ko ki ko bugg a xam toppuñu ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci réew mi FM ko defee ñu ànd yow wax la ñaan bi mooy lan naka la ko yonentu bi denc ak bu ko génnee kañ la kay génne ak boo koy génnee nu koy génnee ak ñaan bi ci boppam mooy lan kon képp ku ñu may nopp incha allahu bi iznillahi subhaanahu wa taala buñ delsee weneen yoon dinañ leen dégtal ñaan bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa ne man dama denc sama ñaan ba yàlla jox yonent yi te ñu ñaan seen bos fii ci àddina man sama ñaan dama ka denc bi keroog bés pénc ma nar kaa génnee ngir ma di ko ràmmee sama xeet ñi mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñuy joxe xibaar ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yuwaffiqana ila ma yuhibbuhu wa yarda allahuma ij'al biladana min xayri bilad allahuma ifhad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma aminna fi awtanina